Alhamdulillah la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Mbokk seetaan fii di lain ah, di di leen jox ku ah, di dan am gan bu macha ñu fassiyé waxtaan ci yu bari kon euh, euh ma leen di wax né ki taxaw ni jëmma ju sell gi taxaw suma boor moy sun gan bi tay fi ci banjul dot tv dot gambia ñu wa waxtaan euh yu bari bari bari inshallah allah kon toppaleen ñu ñu yegg ci kaw waxtaan sun gan gu am mana gi inshallah allah euh, ñu ngi lay ziar euh di la nuyu nuyu gu sell and ehm, di la welcome fizi si banjul tv de Gambia di la dalal ehm, nga ehm, di la wax ne ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo ak askan di lay seetaan asalaamaaleykum waa banjul tv com gambia ñu ngi leen di ziar di tàmbale sun wax ci di leen balu ak di leen bal di ñaan yalla subhanahu wa taala bo boole ñu jéggal di ñaan yàlla saxal jàmm ci askan wi feebar wi nga xam ne mbas wi nga xam ne moo lëmbee àdduna bi yàlla jëlee ko fi ñi nga xamee ne yàlla jël na ci seen jag bakkan yàlla xaare leen ajjana ñi nga xamee ne ñoo tëdd feebar yàlla fëgg seen bopp defal leen tawféex ku mu dalagut yàlla bu la dal bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërë jëf. ñu ngi lay ziar bu wér la wax ne nit euh, yi dikka fii waa Stockholm xam ne ni yéen yéen imaam yi seen taxawaay fii si Stockholm euh, bu ñu la doon laaj yéen seen taxawaay rek pour ñu tënk ko rek euh, pour ñu pour askan bi laa seetaan la la la lan ngay ngay parce que yéen seen taxawaay fii si Stockholm dafa am solo lool parce que fii soxna leen fi diine te ñu ngi am ay njaboot. am am fii ay doom ngénte yeeg takka yeeg dëj yeeg yëpp yéen loo am pour wax yaay moom alhamdulilah di ci sant yàlla rek di gërëm ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñoo xàll yoon wi wallahi ku mel ni macha allah imaam seydu Nourou Tall wallahi yal ko yàlla yërëm yàlla xaaree ko àjjana moo nekkoon imam bi ci am juma hectoriet bi foofu mu doonoon koo xam ne ku xombal ku baax bokk na ci nga xam imaam Moxtaar Jàllo ñooñu dañ leen di jaajëfal te xam ne liggéey bi ni mel nii ñoom la ñun defuñ dara ñun bërki démb rekk lañ ñëw te ñoom ñu xajal waaw parce que lii olof di wax rek dafay wax ne fecc liir bu neexee rek yaay jaatiyee ca mbagg ma kon bu ñu toogee tey ba di ñu tudd di ñu dugal ci yenn barab yi ñoo ñu ñoo xàll yoon wi te ñoom ñoo joxe cër bi te loolu dafay jàngale rek nekk benn bi nga xamee ne noonu la jullit ñi waree ànd nekk ko benn bëggante yéene xante jàmm ngir yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kenn si yéen du gëm lu dul li mu bëggal boppam mu bëggal ko mbokkam suma serigne suma seexu murabbi cerno abdourahman bari mu mom ni mu déggé hadith bobu moy da ngay jëk buggal sa mbokk nga di bëggal sa bop kon mu melni buntu bobu lañ fi ubi wan ñu nakala ba légui nga xam tay amna barab yo xam ñoom buñ ko munta demi tamit danañ ñu fay ebal ñu di fa dem te buñ fa démé machallah alhamdullilah alhamdulilah ñoom danañ koy rafetlu torop ci taxaway bi nga xamé né ñu ngi ko fay taxaw di jaajëfal tam waa Sweden gàcce gaalama nga xam ne ki nga xamee ne moom daf lay jiite di la waxal yow mi nga xamee ne yow yaa ko topp di ko déggal yow lañ war a jaajëfal waaw parce que tamit jiite nit ñi yombut yomb na yomb na ci bu fekkee ne danga ci gis yàlla lu yëngu rek nga séen si yàlla waaw waaye soo leen ñu nangulee loolu ànd ak ñun ci anam boobu noonu déggal ñu kon ñu ngi leen di jaajëfal di ñaan yàlla yàlla dolli fi jàmm ak xiiwal yàlla gën a kàttanal góor yàlla yooyu imaam yooyu nga xam ne ñu ngi fiy liggéey ci diina ji defal leen wér yàggal leen fi bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa nga gis ne imaam yooyu ñu ngi fiy liggéey liggéey bu am solo lu mel ni SSJT bi mooy Svenska Senegambia True Sam Fond bi nga xam ne Imam Ahmad Kane moo ko jiite waaw mu doon organisation bu am solo Gambien yëpp mu doon njëriñ ci Gambien yëpp moo tax dañ di wax Gambien si ku nekk na nga ñëw bokk ci True Sam boobu waaw Imam jiite ko ci anam boo xamee ne anam bu rafet la ci biir loolu bu fekkee bokk nga si Imam am na des yoo xam ne daf ko dee jël. di jàngal suñ doom yi alxuraan ci skype bi fi mu nekk nii am na place boo xam ne ci masta gi ñu nekk nii daf fi daan jàngale waaye xam naa coronavirus bi moo tax covid 19 bi moom moo tax xëj nañu ñu tëjagum daara ji waaye li ma bëgg a wax rek mooy mu ngi si yëngu bu baax a baax ak ñi nekk ci gannaawam yépp pour rek Gambian community bi ñëpp ñu bokk am jàmm te looloy li nga xam ne moom lañ bëgg yàlla nañu yàlla defal loolu yàlla yàggal leen fii defal leen wér jërë ngeen jëf Gambien si nekk Sweden. léegi dañ la ko mën laaj gis naa ne daaw euh, sa digganteeg euh, Cheikh Serigne Abdourahmane Bari nga doon bu doon muxadam bu dëggu ñu bëggoon nga wax ñu tuuti sa diggante ak euh, sëñ bi. Alhamdulillah, suma seexamu rabbi cerno abdourahman bari ya na fi yàgg te nga xamne ne deug lepp lo xamene ni xajna tay mel nañ ko deug deug def nak moko def ci ñun diko gëreme suma papa tam suma papa bima jur Cheikh Omar Ibrahim Lay moy suma papa ñukoy oy oustaz Omar Lay ñu bari xam nañ ko Gambia yi daf daan waxtaan ci radio Gambia bi jakka ja ca jëm senegal rek firi na fa lu dem ci over ten years bem ko defee tamit kootu jàkka ja fa ñu dëkkoon i tamit foofa noonu tam mu fa daan firi alquran ba ci umul xaraa bi nga xamee ne mu ngi nekk Latrikunda Mampatookoto Fajikunda foofa ca boori juma Fajikunda ba moom itam lopitaan yi Fajikunda ba foofu tamit mu ngi fa doon firi alquran def na ko lu weesu fi mu nekk nii ñeent fukki at ak lu teg kon suma papa boobu lay gërëm ci moom mi nga xamee ne boole gi nga xamee ne boole na ma ko ak Cerno Abdourahmane Bari te suma papa nag lépp lu mu xam ci firim alxuraan ci keppaar ak Seex Ibrahim Baye Niass la ko xamee ngir fala daan toog di jàng firim alxuraan macha allah alhamdulilah ba tax tey mu mun di ko def alhamdulilah suma papa moomu moom moo téye suma loxo yóbbu ma ba ci sëriñ bi dénkaane ma fa may ànd ak moom kon alhamdulilah sëriñ bi ñu dem ba nga xamee ne bi ma waree ñëw Sweden and this was ma war a ñëw Sweden 1993 ci diggante boobu noonu suma papa bind leetar jox ko sëriñ bi na ma yóbbul ko sëriñ bi nga tàggu ko bu fi jógee mukk te tàgguwoo ko ma dem yóbbul ko sëriñ bi tàggu ko waaye jiitu loolu tamit ma wax ni nga xamee ne moom noonu laa demee boogal te mooy gàmm goo xam ne gu fa amoon la ñoom seen waa daayira bi war faa dem suma papa ne ma nañu demaale ba ñu demee ba egg foofa noona mu ne ma nang fi toog ba sëriñ bi yeewi la noonu laa fa toogee foog naa am naa fa one week wala ten days gannaaw gi la ma sëriñ bi yeewi ndeysaan maa ngi fàttaliku jàng yooya keroog sax boos bi nga xamee ne moom la daayira bi yóbbu woon falaa tëddoon ngir munuma woon a egg sax ci tànt bi kon nag di sant yàlla tey bu ñu waree dem ba nga xam ne ci biir xadara boobu noonu ràññee nañ ñu fa te loolu dara waralu ko lu dul góor góorlu gi nga xamee ne nii walla jàmm bi nga xame ne suma papa bëggal na ma ko ba boole ma ak sëriñ bi sëriñ bi nag jàpp ma def ma doomam dëgg daf ma jàpp def ma doomam dëgg waaw ngir lépp loo xamee ne nii taalibe mu ngi koy ut sëriñ wallahi sëriñ bi defal na ma ko alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax waaw sëriñ bi bi nga xamee ne tàggu naa ko nag ba ñëw Sweden bi ma ñëwee Sweden 1993 moom ñëw na fi 1995. waaw bi mu ko defee mu ñëwaat fi ay at ba si am 2001 si la ma sëriñ bi tëb fii ne ma bu mbooloo mi dajee yow yaa ma doy ci jiite leen ci julli bu fekkee ni waxtaani diine la yow yaa ma ci doy alhamdulilah ñuy ànd ba ci 2019 bi sëriñ bi def ma mu xaddam ma nekkal ko fi mo jox ma ijaasa bu am solo ijaasa bu am solo bo xamne ne ijaasa li laax la nga xamne ne goor yalla yi danañ di def luñu luñu man pour rek am ko lolu serigne bi tek nako ko suma loxo motax may wax ne ma ngi andana ak serigne bi waye deug deug liko war suma ak mom def nako ko ba mat waye man nak damay ñaan rek ma nek taalube te nangul ma suma taalube man dafa dafa lu ko dara dafa lu ko dara waaye moom daal defal na ma lu ne te lépp lu ma am itamit wallahi dañ koy jëlaat rek delloo ko ko te xam ne ci moom la ak itamit dëgg-dëgg su ma ndimbali waajur ñoom ñëpp yal nañ fi yàgg te wér ba tax na noonu la ñu àndee ak moom di liggéey ci biir dëkk bi ba koo wax tey mu ne la imaam lay te loolu dara waralu ko lu dul sëriñ bi taxaw bi nga xam ne taxawu na ma ko ak ñaan yim def ci man ak itamit man itam ma jàpp rek dëxa bàyyi te duñu mas a bàyyi te ñaanuñ yàlla sax xam kàddu bàyyi waaye daal bëgg nañoo ànd ak sëñ bi ba faw yàlla ñu yàlla defal loolu sax di taalibe mu nangul ñu suñu taalibe bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa si réewu nasaraan. waaw suñ dëkkin fii si réewu tubaab. alhamdulilah ni ma ko gisee daal damay wax rek ne xam nga dëgg nag neexut am na dëkkin woo xam ne noonu la ñu waroon a dëkkee nu wuteeg nii nga xam ne noonu lañu dëkkee dama bëgg nag pour ñu dégg ma xel te bañ ma dégg ak xol fi ma waxee rek mooy léegi-léeg ñàkk a déggoo yi nga xamee ne mu ngi ci suñ biir boddi xante bi boole xante bi yàqalante bi jëwante bi loolu duhut loo xamee ne ni lu baax la waaw te loolu bari na ci suñ biir ñun ñëpp xam nañ ni nga xamee ne noonu la fi taajoo moo tax danaa koy wax gars yi léegi-léeg nga gis nit am problème ak nit sax dugg ci social media bi wax fa lu nekk te wax ga ngay wax lépp loo dégg la rek amul lenn loo xam ne lu la si leer la may wax ne nañu bàyyi xel tubaab yi nga xamee ne ñoom lañu fekk ci ci seen réew mi le waaw nit ñu yaatalee jox ñu fi cër waaw suñu xoolee foofu rek ñu gis ñi ni ñu fonkee doomi aadama rek mu wóor la ne lépp lu ñu am ci yàlla fonk gi ñu fonk doomi aadama moo leen ko may ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xam ne kenn si yéen du gëm lu dul li mu bëggal boppam mu bëggal ko mbokkam waaw wax jooju ñu dañ koy wax ci waxtu wu nekk waaw moo tax tubaab bi bi mu demee ba xam ne li yàlla bind nit moo ci gën a foor léegi-léegi nga am ñoo waxal sax waye dañ lay wone la gëmu yalla légui lég sax li nga waxtaan ak ab tubab sax mu ne la sax gëmu di yalla waaw lolu ay cadeau cadeau la bo xamé ne mom bu muy wax la tay tamit ñen si ñoom itam gëm nañ wax yoyé ñuy wax waye lima bëgg wax fofu non sax su fekké ne mom daf la ne sax gëmu di yalla waye cër bi nga xamé né war na ko jox doomi aadama mu ko koy jox ba mat lolu rek warna tax ñun ñu seetaat suñ bop bu baaxa baax bi nga xamee ne ñun dañuy wax ne gëm nañ yàlla am nañ diine waaw am nañ unité boo xam ne buñ gëm la te kooku lam jàngale yépp mooy fonkante bëggante dimbalante te yàlla yàlla yàlla tax waaw sunu koo ci gis ci ñun am nga sëriñ te sëriñ ba lam lay digal mooy na ngeen ànd bu ànd nga ngeen di ànd moo leen di yóbbee ngeen dem ba xamante su ngeen demee ba xamante dangeen bëggante te su ngeen bëggante dangeen dimbalante lu tax loolu yépp ñu bokk mun a am mbooloo di am ay société am ay organisation te ba tey mënuñoo am jàmm ci suñ biir kon war nañoo seetaat suñ bopp bu baax a baax te dara waralu ko rek nguur topp gi nga xamee ne ñu ngi koy topp suñ bakkan yi la dañu topp suñ nafs yi lool lool lool lool lool waaw waaw moo ñuy yóbbee lii lépp waaw ba tax na am na noo xamee ne waroon nañ koo dëkkee ci biir réew mi fii wallahi jàmm rek lañuy am waaye nag loolu dafa des ba tey waaw des gim des mooy li may wax noonu rek waaw ñàkk a jàmmoo gi ci suñ biir nañ ko bàyyi xel bu baax a baax waxuma ñépp nag waaw waaye ñuy dund loolu ñoom itamit <clears throat> xam nañ seen bopp kon fañ bëgg a waxee rek mooy ku ci nekk na nga seetaat sa bopp may wax toujours ne ëpp doole ci ñun ñëpp seventy percent of ñun ñi dëkk si diaspora bi ëpp doole si ñun ñëpp dëkkee wuñ fi dëkkin woo xamee ne nii wu jaar yoon la ku ci nekk ja ñëwee nga fi ci yoon woo xam ne nii dëgg-dëgg buñ la seetee settaliwaat la nga ñibbi waaw moo tax ma ko doon ma ne tubaab yi bu ñu demoon ba doon ñu gëstu waaw kenn dootu fi des ñëpp danañ bokk ñibbi waaye ñoom ñu xamal ñu yooyu yëpp noppi ñu ñuy sullihante mbóot waaw loolu nekkul jikko joo xam ne jikko ju rafet la kon sullihante mbóot bi war nañ koo bàyyi jikko yi nga xamee ne jikko yu ñaaw la nga xam ne loolu daf ñuy tardeel nañ ko tegee boor xalaat loo xam ne moo ñuy jëmale ci kanam léegi-léeg nga dégg surtout jigéen ñi ñoo koy wax nañ leen ñuy empower empower women whatever am na nu ko gars yi tuddee ak yooyu noonu women empowerment whatever waaye terewut ci seen biir sax nga gis ni nga xamee ne noonu la ñuy yàqante yàqante bi nag suy am ci dëkk boo xamee ne nii wallahi dañ fi ñëw rek surtout léegi-léeg nga dégg gars yi ne dañuy ñëw rek ut si delluwaat te terewut suñ at yi yëpp genn wàlli suñ dund yëpp fii lañ koy dund fii lañ gën a xam kon nañu rafetal fii xubbul watani min al iman lalu la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa wax mu ne bëgg sa réew bokk na ci gëm yàlla réew nag fa nga dëkk man faa jaamoo yàlla am fa sa njaboot foofa noonu nga dëkk parce que bu fi mbas doon tàbbi ñëpp war cee bokk te nga nekk ci dëkk bi doo ci mucc waaw kon ba tax na ñun fii lañ dëkk nañu rafetal fii fonkante góor-góorlu jàppante ak imam yi ni nga xamee ne noonu la fi noonu lañ fiy doxee di dimbali suñ doom yi di leen jàngal ci diine ji ñu ni neen ñu jàppoo ànd nekk benn mooy li gàtt li nga xamee ne nii moom laa amoon pour joxe ko asan advice ci ni nga xamee ne noonu lañ fi war a dëkkee te xam ne dëgg-dëgg tubaab bi daf ñu xajal tey tubaab bi dafa fonk doomi aadama te ñoomi neen dañu ànd nekk benn moo tax yàlla wax ñu ci alxuraan alquran walisina kafaru baadum awliya baad illa tafalu takkoon fitnatul fil ard wa fasadun kabiir ñi nga xam ne day iifar lañ ñooñu ngi jàppante ci seen biir su ngeen deful loolu di ngeen am fitna te di ngeen am kaos bu mag a mag a mag ci kaw suuf kon nag nañu bàyyi xel loolu te góor góorgóorlu ànd rek te yàlla tax. moom leen laa laaj parce que coronavirus bi doon na loo xam ne si na yàqu-yàqu bu bëri ak tardement bu bëri ci àdduna bi euh, ñu bëri génn euh, euh, génn nañ si àdduna ñu bëri faatu nañ si boo ñu doon wax lan nga foog coronavirus bi loolu moo ko waral ak lan nga foog ne yàlla teg teg ñu natt boobu ba ñu mbas mii waaw alhamdulilah mbas moom dëgg-dëgg gars yi dañ koy wax sax ñi nga xam ne xam nañ history xisa wax nañ si ay génération yoo xam ne mbas ñëw na te tamit la borom xam-xam yi daan wax rek bu ñëwee rek soo njëm yàlla dal ci ñun nga xam ne xëy na tooñ gu ñu tooñ yàlla bu ëpp la moo tax mu yónnee ñi mbas mi waaye lépp pour ñu delluwaat ci moom rek may wax gars yi nag ne li war rek mooy ñu tuub delluwaat ci suñ borom te xam ne yàlla moom kuy jégalaate la wax na la ko astaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara mu ne na ngeen jégalu ci seen borom te moom koo xam ne nii kuy jégalaate la tey tamit yàlla dafa bëgg ñi nga xamee ne nii ñu ngi tuub jëmee ci moom waaw nga def bàkkaar nga tuub man dama yaakaar ne aman na loolu mën nañoo musal ci mbas mi yàlla jëlee ko fi ngir fi mu nekk àdduna bi dafa doy waar waaw nit ñi ëpp doole ci nit ñi dundatuñ yàlla waaw àdduna rek lañuy xalaat waaw surtout suñ boor bi ni nga xamee ne noonu lañ fay dundee dafa métti torop te ñun waxoo wala mbasi corona sax waaye fitna wiñ nekkee rek loolu dafa weesu mbas te dara teguñu ko nag lu dul rek bëgg alali àdduna bi waaw kon mbas mi mbirum yàlla la te yàlla mooy ki nga xamee ne ni moom mooy feebaral tey tam mooy ki nga xamee ne nii moom mooy wéral moom la soob indi na ko fi kon nag ñun ñi nga xamee ne nii teg na ko suñ kaw am na lu ñu war moo ñu jéggalu ko tey ñaani tamit te xam ne ñaan amut lu mu mënut yonent bi sallallahu alayhi wa na ne duwaa silaahul muminin mu moom mooy ngànnaay yi ñi waaw tamit ñaan jaamu yàlla la ba tey tamit kon ba tax na istixfaar yi nga xamee ne ñu ngi koy def di jàng ay alxuraan lu ñu mën ci ay turi yàlla di ko tudd tey tamit dund ko loolu aman na dana ci doon dimbal wax naa ko benn waaye keroog mu ne ma danay def lim bu bari ci yaa salaam ma ne ko buum di nekk ci kàddu yi rek na nekk ci ci ci jëmm ji nga dund ko waa boo dundee jàmm moo gën ngay tudd baat yooyu noonu kon nag bu ñu demee bay tudd baatu yàlla yi bu fekkee ne ñu ngi tudd rahmaan lu mel ni yërmande nañu jël ñi yërmande def ko ci suñ biir ñu ni neen waaw di jéggalante waaw parce que yàlla moom suñu digganteeg moom mun nañoo jéggal de waaye ñu ni neen loolu yàlla mu ne loolu moom manu ci dara kon ñu ni neen ñu ñoo mën a jéggalante settali xol settali xol yi yéene xante jàmm tàppee xol yi waxalante lu baax ngir alxuraan dafa wax ne wax fa si fasimoo bi hablillahi jamian wala tafarraxu ngoyaanu leen ci buumi yàlla gi te bu ngeen teqalikoo buum googu nag mooy xol yi ñu tàppee ko yéeni xante jàmm bëggante te yàlla rek a tax kon su boobaa aman na yàlla dana fi génne mbas wi ngir tooñ baaxut tooñ baaxut te ni ñuy tooñantee ci suñ biir dafa doy waar ni ñuy tooñantee ci suñ biir dafa doy waar waaye daal li ñuy wax rek mooy yàlla rek moom moo xam li tax mu indi fi lii waaye yaakaar nañ ne buñ ko jégaloo danañu jégal tey tamit mën na ko fee jëlee di ñaanal ñi nga xamee ne nii yàlla jël na ci seen bakkan yàlla xaare leen àjjana yonent bi doon seen wéttal ñi tëdd feebar yi tamit ci feebar bii ñi feebar ñëpp yal na yàlla fëgg seen bopp defal leen taw féex ñi nga xamee ne ni jotagul leen moom yàlla dégg rek doy la leen ci yal na dégg googu noonu toll foofu noonu ba buñ ko gis tey tamit buñ masa am feebar bi bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf loolooy lu gàtt li nga xamee ne moom laa amoon ci mbirum coronavirus boobu noonu di Covid 19. waaw yaa imaam kontaan nañ trop tey di nga ñëw fii ñu seet ñu. Euh, normali sax ñun ñoo la war ñoo fekk ci waaye nga bàyyi sa soxla bàyyi sa yitte yépp euh, pour rek lii rek wane na ne diine moo la ñor islam moo la ñor soo wane nga ne fu ñu la soxla rek xam nga di nga dem rek te yàlla tax soo loolu ñu ngi see sant di la ci gërëm euh, di la wax ne lan mooy sa kàddu bu mujj alhamdulilah suma kàddu gu mujj mooy di leen gërëm yéen i tamit ci seen liggéey bu rafet ci seen taxawaay. waaw parce que soo su fekkee ne yaa ngi may jaajëfal ci ñëw gi ma ñëw ma ni tamit ma di la jaajëfal ci woo bi nga xamee ne ne moom nga ma woo tey tamit comme ni ma koy waxee kuy liggéeyal diine moom du toqi waaw doo toqi boo jugee di dem nag moom. ku ci ku nek rek dana am kaddu yo xamne dana ko sanni waye da ngay baye ñoñ ak seeni kaddu parce que boy dox ci yoon ñu di la sanni xeer ku la sanni nga jëlaat xeer sanni da ngay yag ci yoon wowa nona kon lima bëgg wax fofu nonu rek moy buñu juggé fi ñew buñu baye sun soxla yeb ñew fi pour tam rek jappalé askan wi la bëgg nak la nga xamé ni ñu ngi koy wax mu doon lo xamné luy njëriñ askan wi la tey tamit yéen a ci doon dimbal parce que bu ngeen ko jëlee di ko tasaare pour àdduna bi yëpp jot si loolu ndimbal la ci askan wi yal na yàlla gën a barkee loolu waaye di wax ne daal nañu ànd nekk benn nañu yéene xante jàmm nañu yéene xante jàmm ma tëjee kàddu gi may tëjee suma waxtaan wu nekk yàlla daf ñu wax ci suratu anfal mu ne waatiullaha wa rasulahu ولا تناسعوا فتفصل فتفصل فتفصلوا وتصحب ريحكم واصبروا ان الله مع صابرين من واتعوا الله ورسوله نغن توب يالا اك يونتيم ولا تنازعوا تبغين خاجلو بغين ديف خاجلو دي خيو سي سين بير من سوغن كو ديفي رك فتفصلوا دي نغن فيل و باري وتصحب ريحكم سين كاتان غنغن نارونا ام دوغن كو اماتي واو واو doole ga ngeen naroon am da ngeen koy da ngeen di isek dingeen ngeen ba pare doole jangeen ngeen naroon am du ngeen ko amati waaye nag mu ne wasbiroo na ngeen muñ inna laa maa sabirin kon nañu jël muñ jiital ko comme niñ ko waxee ci waxtu wu nekk lu ñëw nga gis ci yàlla alsabrula yat ila bil xayri muñ du la dikkee lenn lu dul yow danañ ko wax di ko waxaat kon daal mbir mi lépp muñ la jàmmoo bëggante wallahi bu ñu dundee loolu rek ñun ñëpp danañ am jàmm te loolooy li nga xamee ne moom la ñu yàlla subhaanahu wa taala sant yonent bi muhammad sallallahu alayhi jàngal ñu ko ba mat sëkk sunu seexu mu rabbi yi tamit jàngal ñu ko ba mat sëkk ma tëjee nag ci benn kàddu boo xam ne Cheikh ibrahim Baye Niass dana koy wax macha allah sunu sëriñ moo ne dafa am benn jëmmi jamaano mu gis ne lépp lu mu ñaan yàlla luy jeex la mu dellu soxlaxaat donte bu dee ay soxna la danañ dem bàyyi la fi wala nga dem bàyyi leen fi bu dee ay doom noonu bu dee alali alali àdduna noonu mu ne yal nañu yàlla may yàlla boo amee yàlla rek am nga lépp boobu la gis ne nag ñaan am yàlla wala delloo sa bopp ci yàlla rek mooy doon dimbal li kon foofu la ñuy jama jañax jaam yi ñu delloo seen bopp ci yàlla xam ne loolu moom mooy doon su ñu amee yàlla am nañ lépp ngir lépp loo am rek ding ko fi bàyyi wala mu bàyyi la fi te yàlla moom boo ko amee rek am nga lépp kon nañ far jëmm yi taxawal yàlla te xam ne leen nekku fi loolu laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin di jégalu ci kàddu yi lépp lu yàqu ngeen xam ne suma xam-xam bu matadi la waaye su rafetee nag ngeen gërëme ko yàlla ak yonente bi jërë ngeen jëf سبحان الله والحمد لله ولا إله